allo allo salaamaaleykum. maaleykum soxna si ñu ngi lay nuyu bu baax yaa ngi ci émission wareef. allo. allo. wàññil wàññil télé bi wàññil télé bi ndax nga mën a wax ñu dégg la. jërëjëf. Hmm. sa thème bi ñi ko dund dañoo bari ci réew mi. waaw waaw xam naa ne yow itam daa ci jox ay jéego yu continue waaleykum salaam wa rahmatullah oui ma chérie ça va maa ngi fi ñu ngi fi ñu ngi fi ñu ngi lay fay bu wax sa bi dafa ndaw lan la tu une petite voix naam ah, maa ngi lay fay ku baax ki dafa mel ku sonn wax tuuti ci émission bi. Mhm. Mhm. ñu ngi lay déglu gannaaw dem di remercier bu baax. jërëjëf. ndax grâce à vous. Mhm. a tax ma ma xam tamit très parent. alhamdulilah grâce émission bi. amiin moo tax man ma xam man maay kat. ndaxte maa ngi lay am naa benn septembre. mosuma xam man ki ma nekkal lu sama papa mosuma ku nekkal sa ndey ay. vendredi ko xam. ba seen émission bi moo tax ma xam ko. Mhm. ndax su ma toogee sama yëpp ay yéen rek lañ seetaan danaa ma jàppal waree jàppal waree. Mhm. ma jàpp ko keroog émission bi ba mu commencé depuis semaine bee. mu mhm. ne ma lii la ma gis ma ne ko refuse paternité mu ne ma lan la ma wax ko ko mu ne ma ah tey sama gars yi fii lañ génn ma ne ko waaw ma dem ne su ne dañuy génn tey suñu génn ah daal di naan la changé. ma ne ko yaay lan moo tax lay changé. mu ne ma changé rek. Mhm. ma ne ko baax mun ma boo ko changé wu da ngay jóg mu jóg man de man mu dem bàyyi ba mu dem man ko def waaye changé naa ni ba mu toog man ko di ko toog seetaan ko. waaw ñuy seetaan li ñuy seetaan yëpp xam naa ne nekkul. on a toujours benn femme bu ci nekk États-Unis. mooy mhm. bi doon wax mooy itam doom bi dafa dafa décidé. Mhm. te sant si soxo. waaw laata kan loolu. waaw li muy wax yëpp moom mi ngi jooy. ma ne ko waa yaay lan la mu ne ma damay njaboot rek xam ne ci li ko dal métti na. ndekete yow moom la ndaw soo ko dund lu ko raw la dund. ndaxte man sama yaay suñu mooy sama sama yaay. da daan liggéey mbir naan. kër ga naan liggéey mbir naan ca Paaba. Paaba boo ko ko def à l'âge de douze ans. bi ma ko ko defee nag mu daal di bañ. li mu moom. toroxal sama yaay toroxal sama papa. ndaxte sama ña ma naan papa yaay ñooy sama maam. waaw man sama yaay moom dong la yaayam ak papaam am ci doom mhm. moom kese hmm. la am ci doom mhm. léegi da sama papa boobu bi mu demee di ko ko rek laa ne da ko bu baax jaadi ko ni ko walaaka am ni ñu ko wax génn mhm. papa papa depuis boobu ba tey dafay souffrir maladie ndax la même ko ba ma xëy ndiggam ba tey day nekk li tax nag ma xam dëgg dëgg mooy yéen da ngeen def émission moom mu jóg dem ci néegam di jooy ma fekk ko fa wax mu bañ. Mhm. ma papa ñëw ci guddi ko diw nañ ko wax dëgg ndax ñu ko ko dëgg mais dina ndax waaye waxee rek lii ngi def émission bi rek koo laal ko moom xamal ko dëkk ci. Mhm. man booba maa ngi gëstu te li may gëstu xaw ma lan la. Mhm. ma taxaw bii ci biir seen tool bari sama papa di ko mën a ko damay wax daal yàgg danaa bañ. wax naa la ko yaa ngi ko autorité bi ndax léegi ma bëgg ma daal di tënk buntu bi daal di naan ko mën ngeen di waxal wax leen ma lan la. wala ma xaru ñu ne ma déedéet ma ndaw jël paaka ñu ne boole ma waxu ma lan moo nekk ma damay jam sama bopp mm-hmm. ñu ne ma bàyyi paaka bi ñu wax la lan ma léegi dafa guddi léegi dangay ba suba du dara nag ñu ma ne ma day ma kuñ la bëgg a may rek ñedu dara mm-hmm. mañ ko yéen man duma si yi mënumaa dem ba ndax nit rek am ñun ma waa léegi dangay dem ma si guddi googu sama yaay man dafa naa moom su ba teew ma daal di taa ni ko papa la la yaay sama papa liggéeyul booba ndax loolu ñu wax ñu kër gi ma daal ne ma man duma sa papa kii sa yaay man sa maam laa sa yaay dafa gaañu day lay ak allo allo. waaw vas-y waaw. waaw. mu ne ma yow kuy naan la mooy sa mag kooku mooy sa yaay. waaw. mu ne ñun duñu sa yaay duñu sa pap. duñu sa maam la ñu ñëw di sa yaay sa yaay moom dong la am si boobu. ba bu juddoo nag lañ di jël bu teewaat la sa yaay. man fi mu toll nii sama yaay lañ ma tuddeewaat. ma ne ko kan nga sama papa mun ma jël ma sa papa. ma dem ci suuf bi àq ji ko. fekk bu ko fa. ma delluwaat la lan dina ba demaat sax. fekk ma ko fa. man léegi su ma demee ma dafa tukki. sama papa xam ne man dem naa àtte bi sax mu transfert actuellement nii damaa nekk sori doo mën a wax ak yéen ndax xam ne maa ngi wax ci wax ji rek dara am lu ko na xarit mais man woowu mu wax nii foofu ma bëgg xam sama papa foofu loo ko ko xam. wala kaana jëpp bañ ci man ak raw laa bañ moom na doon milliardaire foofu loo ma ko. lenn daal am naqari ma deret deret bi ma naqari mais deret naqari li mu bañ ci man su raw laa bañ moom. billahi wallahi taala léegi dafa feebar bu deewoon nga ko taxaw te billahi wallahi laa sama yaay fa bu tudd ko fa moo fa mu nekk ci ko moo tax ma ne yéen loo leen def lu baax rek doy ndax yéen a sax ma xam maay kan ndax xaw ma ko woon. ay pas une semaine ma xamee fii ma papa fii sama mag une semaine. moo tax démb dama ne ma fu mu tëdd woo ma koy baax. billahi wallahi man woote woote woote te dama def ba woote ku doon xam baax na mu toll. man sama yaay merewuma la sama papa merewuma la def ngeen lu ne. ndax xëy na yéen yaakaar ne boo ma fi jóge jóge damay may ñaax te de tey dama mën a am. di tax ma xam sama bopp man grâce à une émission. loolu moo la naqadi ah. sama papa ni ma. télé mu ne nag yow dangay foog naa man damaa bëgg loolu baax dangay foog naa tata Eva da tataayuma bu ma dagalee toog di tari te émission yeneen yi dafaan def ku naan kii du ma toog defar ma ma ne moom mën na ko mën laa li li ngeen de moom kër laa def léegi ndax moom li ñu wax day bëgg sama biir kaw xam ne yàlla ni ma boobee biir ak xëy na lii moo tax te boole maa yëg xëy na ma bi tax man ma xamoon ma kat yéen day jóge moom moo tax ma nit yéen ba ngeen def ci baax bi yàlla na yàlla def ak jàmm amiin yaa rabbal alamin sama maam saa ma sax wax maam sama yaay merew ma ko sama papa ñu yóbbu ko. Mhm. ci la xamante ni moom laa mere ci la xam moom laa bañ. mais ci li ma jiw a jur. ñeneen ñaa am alal ma wala ñu wala gaan la wala gaan bi nag taxul ñu toog yàlla taxul ñu def na ko ci lu noonu. te moom xoolee xool na ko sama xam ne ñun benn la. Mhm. kon moom. parce mhm. que man bañ naa ko xam. li ma nakay waaye ma ànd na yaay ma jàpp. dama yaay ñu génn ànd na grâce à noonu moom ak ay xarit. xëy na yàlla nag noonu la ko tuddee xëy na dinañ ko kuy ci ñëw te àdduna dina def waaye loolu moom ak métti dañ ko ko tuur joxu ma ak sama sant yaay laa mhm. yaay. waa léegi euh, témoignage bàngo soxna wa